المتعلقين به عامة وسلم عليكم سلاما حسنا مباركا وأحييكم تحية طيبة وأشكركم شكرا جزيلا من جبوتك الشيخ إبراهيم doom yi ak sët yi yéen taalibe yi aju ci moom maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen jottali nag ndigal lu jógee ci sëñ Abdul dikk ci man ma war leen koo wax mu bokk ko jëf lu mu am ba mel na mu bëgg dafay dikk wax ma ne ma toolam yële nga xam ne ñoo ko gorolan ñoo ko ko gorolan dugub jamu fu wee juróomi téeméeri hectare la mu bëgg ñu góobal ko ko te it mu bëgg balaa màggalu daal xuddus gi dikk ñu góob ko loolu moo tax ma di leen woo yéen ñëpp doom yeeg sët yeeg taalibe yi fu ci waay mën a nekk góor ak jigéen mag ndaw ñu nam ci Pastef te defal ko ko ni mu ko bëggee ñu ngi koy jàppale nag alxames di fukk ak juróom-ñett ci weeru tamxarit yi waaye koy dem nag da ngay fas yéene fanaan ci bisub àll booba di fukki fan ak juróom-ñaar bu ñu xëyee rek ñu liggéey liggéey ba ba mel nañ bëgg te it na ngeen góorgóorlu def ko na ko daa def ngir mboolem liggéey yi na weesu ku ci boo xam ne dikk ngeen di wax ne dara des na fa lii it nu mel noonu mbaa mu raw ko te liggéey ba sell bala ngeen faa jóge na ngeen ko góob dajale ko fi benn barab soo ko faa jóge mu yewi leen ngeen dikk te it ngeen am ci pas-pas bu baax te xam ni ah, taalibe moom liggéey dafa am solo ci moom ndax al iradatu saadiqatu ni ko sëriñ bi waxe mooy taalibi gu dëggu ñu ngi amee ci yet mooy lim ne tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaatin waaye liggéey la jëy la jiital sax moom la jëkk a tudd yett yooyu ci leen murid moom rek kon bari na waaye murid saadiq la wax mu ngi amee ci yett yooyu kon nag liggéey lu am solo ci nun la te it dëkk bi nga xam ne moo tax ñu diñu ko sant loolu ca la nekkoon ak sëñ Touba dégg naa ci làmmiñam mu ne sëñ Touba wàcce na ma bu dul benn du ñaari ci loo xam da ko bind jox ma ko wax ma ko ci làmmiñu waaye mosuma nangoo wàcc kon nag ñi nga xam ne ñu defaguñu dara bu ñu joxee ab liggéey war nañ góor góorgóorlu am na it loo xam ne waxan naa leen ko ci lëgg yi ñu yeenu weesu woon noonu naa leen kër gi daal nunu def suñu chiar mu di lu la nga xam ne moom la borom daaru waxan ba ko sëñ Tuubaa di sanc loo Tuubaa sanc ba dafa rëy lool te it muy jamono joo xam ni xeex bu njëkk bale dafa jeex ca déwén sa rek mu sant ko ko mu di ay kër ñu war a liggéey ca Touba ndax yaari kër la yoo xam ni dañuy dend te waaye duñ jote duñ jote dara bu ci ne day am këru boppam lay doon ak baraagi boppam yam bëgg mu def ko ci mu wax ko limb ak nañ koy liggéey ñu dend ko defee mu sañtaat daaru Xuddoos sañtaat daaru googi sañ soxna bu nekk sañtaat daarul minan wax ko it ni ko boo demee mboolem Touba suuf su féete woon kaw na féete biir nga xam ne ñëpp dañuy toog fi suuf di fàkk ba jot kekk la def ko ay jal ñu gas ko dugal suuf sa ci biir ba tolloo ci foofee nag am kilifa gu dikk goo xam ne da ko wax ni ko réew mi day seng amu ci ba mu demee mu ne diw xanaa ndax maa xamul xamul sëñ Tuuba ndax sëñ Tuuba lu mu bëgg dana am te man lu ma digal danaa ko def ma ne nag kër gi mën def loolu yi mooy sunu màndal mooy li ñuy wax ashaaru loo xam ne ku fi nekk sëñ Tuuba lu mun wax lu mu bëgg nan ko ko defal lu mu waxit nan ko def loolu loolu la waxan boobee kon nag loolu ku fi nekk rek la nekk ci loolu lu mu bëgg dana am lu mu digal danañ ko def ah te dafa war liggéey bu dikk mu defee ni lam doon wut ak lam doon bëgg lépp mu ngi ci biir liggéey ndax kuy wut loo xam ne xamula fu mu nekk te mu gën lépp man koy làmbatu fu nekk waaye di wax naan di naw sa jëf te naw jëf baaxul wala ajbu ah, ndax iblis naw jëfam ak defe ni eh, moo gën aadama moo tax bañ ko nee su jootal ci aadama su jur leen ci aadama yéen malaayika yi mu gàntu benn su jur rek ci lañu ko dàkkoo jël ko kon taalibe itam mën naa xamee ca loola ni liggéey bu jóg dafa war a defe ni lii lam lépp mu ngi ci ñu wut ko ca loola am na it loo xam ne ñu bari dañu koy wax di naw seeni jëf te jëf ji yaar da ca nekk amaana ñu bañ ko nangu naawuzu billah amaana ñu nangu ko ba noppi nga def loo xam ne da koy yàq loolu yi sëñ bi di wax wa rubbama ibaadatun kathira qad afsadatha lahwatun xaqira bari ana jaamu yàlla yu bare bare yi nit def ko seen ngenn ko su tuuti rek yàq mboolem la mu defal kon defe ni li nga defal mën nga ko xam lu nga fa am déet mën nga am ay gaaf yoo xam ne dañ la koy topp te loolu mën koo xam ci àdduna si am lu bare bari waaye ñu ngi lay topp lu ëpp loola ñu def la li ñuy wax sasir def la li ñuy wax fayit moom lay wax naan al mufallasoona al mufallasoona dana am dana am àllaaxira ngay dikk yi ñu bari waaye fekk rey nga kii xasura kii lekk nga àllali kii rambaaj yeeg lañ kii bu ko defee ñu fab yooyee nga amoon yëpp dox ko ko nangu ne toj bu yooyee dajut ban nga war a fay ñu fab nag ci bàkkaar yi ñooñu di la ko sëf ndax foofu nguur sa xaalis amu fa li muy fayantoo mooy jëf rek kon daal di defe ni rek li nga liggéeyal sañ bi ak li nga jaamu yàlla ak loolu lépp nga xamul ne lée ngi ci xamul ne nangu nañ ko mu déet xamul def nga lu ko yàq moo tax jëf motul naw te it ah, ku ko seetlu sax xam ne adduna sax ku ci bëgg teraanga dangay nangoo liggéey nangoo jëf waxuma laat allah xale ki xam ne boo demee loo fa yóbbaale suñ doo ko def kooku moom mm, wóoru laa noppalu rawatina ci nag taalibe yi di wax ni man day ah ñii laa def liggéeyal naa sëñ Tuuba nangam fekk naa ko Jolof dem naa Gànnaar def naa nii ki na mu dikk njaareem nii ki na wala maam Thierno day man ba mu nekkee dëkk sàngam mu nekkee daaru man naan ba mu nekkee Mbàkke Kajoor ba mu dikkee daaru nangam nag di di nga def wala nga di wax ci sëñ Modou Moustapha ñii di ko sa jëf la te xam nga la jëf ji nangu nañ ko mbir xam nga lu it def nga lu ko yàq ba dara nekkutu fa am déet naawuzu billah kon bu leen naw jëf yi lu yëkkati ko rek te jóge ci jubalal ka fa nekkal Sëñ Tuubaa na ngeen defee ni la ngeen doon wut lépp mu ngi ci lii ngeen wut ko ci te gis nga boo demee ci sooratu tawba si dafa am benn xare boo xam ne def naa ne moo di xaswatu Tabuuk ba ci yonente bi dem dafa am ñett ñoo xam ne ay kilifa lañu daal ci saaba yi ñu ruusaanu bañ a dem waaye alxuraan moo wàcc indi leen weer leen wa ala thalathati alladhina xulifu xatta ida daqat alayhim al ardu bima raxubat wa daqat alayhim anfusuhum ba ca laaye ja ñu julli suuf gi yaay yaa ba ñu gisee xajatuñ ci alxuraan far dikk wax loolee kon loolu liggéey jóg nga ne man bokkuma ci wala nga def ni weesu nga ko noonu iblis def te fekk moom li fay yaa ngi dund waru laa weesale sa bopp bañ liggéey ngi jóg rek ni ngeen defe li ngeen bëgg lépp a ngi ci te ngeen wut ko ci ak ku fi nekk nag naka itam li nga xam ne mooy mbirum dem gi itam ak liggéey bi ñëpp laa ko sant yemale mu ko ci taalibe yi yaa aju Ceerno rekk képp koo xam ne ab taalibe nga liggéeyal Sëñ Tuubaa moom mm, war na ci yow te rafet na ci yow te kenn weesuwu ko te liggéeyal Sëñ Tuubaa kon ñëpp laa ko sant ak jullit ñu nu bokkal réew mi ak taalibe nga xam ne noo bokk Sëñ Tuubaa ku ci mën nga dem ndax la fa def sa bopp nga ko defal Sëñ Tuubaa nga ko liggéeyal góor ñi ak jigéen ñi ne ñëpp dem ndax ngóob moom jigéen mën na ko joxe am ndox wala ñuy joxe aw ñam wala leneen jigéen mën na ko bu kenn bés ah am na it lu ñenn ñuy def gis mbooloo mi dem ñu bari nga defe ne yow boo toogee euh, du tee la ñuy def nag fekk loola euh, bu boo ko defee keneen def ko keneen def ko léegi ba daal di danga daay ku ne da koy bëgg a jël wàcc sa morom boo nee gaañu dem nañu defe ne bu ñu demee danañu mën la ñuy def gaañu bu ñu ko defee seen bopp lañ koy defal defaluñu la ko ñoo tax ñëpp nañu maase ci dem bi góor ñi jigéen ñi ak mag ñi ndaw ñi te am ca pastéef am ca pas-pas lañu bëgg lépp ñu fas ko ci te yaakaar ci yàlla ak sëñ bi te xam ne moom la ñuy liggéeyale tuuti mbirum li yóbbu nit koo xam ni transporteur nga wala ngay koo xam ne am nga oto sa bopp boo xam ne danga koy doxe sax wala muy bu ndaw wala muy leneen ñu dimbali ñu ci li yóbbu nit ñi dinaa wax moo du ñu mu tudd tur yu borom oto yi transporteur yi waaye koo ci xam ne dugguñ ci aw turam xam ne sant nañ ko liggéey bi dese mënta tudd ñëpp rek dana wax nag seeni tur ñi nga ci xam ni mënees na leen wax waaye ñëpp lañ ca woo mboolem koo xam ne it am nga woote dëkk ci dëkk bi nag moom xam ne moom yow yàlla moom liggéey bi nag moom fu sa woote nekk di liggéey nañ ko bisub àllarba ba mu dikk fii yóbbu nit ñi toog fi ba alxames liggéey bi jeex ñu delloo leen delluwaat ca fa ñu liggéeyee ji loolu moom taalib yi ne dëkk bi te amee xam ne ñoom liggéey ba ko moom nee bara wëllu mbokki talibe yi ñu ngi leen di bàyyi ak discours bi nga xamante ni Serigne Abdou Khoudous Mbacké def na ko ci màggalu Daaru Mooti ci weeru mois de mai ci 1984. loolu rafet na. ni dana rafet nag. te yàlla. te yàlla. mu wax leen luy bis bi. mu wax leen bis bii ngeen ñëw tey lu lan la. bis bi. sëriñ bi nee na bisu tey bii. sëriñ Modou Awa Balla mi ko fi tàmbali woon. sëriñ Modou Awa Balla magam ju baax ji mu wutu tey ci place bi tàmbali woon ci bis bi. ba nga xamee ni borom dëkk bi jóge na fi. ba nga xamee ni boroom dëkk bi di maam Thierno Birahim mi ko sañcoon jóge na fi. boo weeree bëgg a si. ba weer wa di bëgg a dellu daf naa wax ni. daf koo waxoon ni ko. nga ma bindal bataaxal sëñ Modou Moustapha. na ma bindal ab leetar sëriñ Mouhamadou Moustapha Mbacke. ñu ñaan ko. ñu ñaan ko. roy ko lii nga xam ne moom la def muy màggalu tamxarit bi. roy ko lii nga xam ne moom la sëriñ Moustapha def muy màggalu tamxarit bi. muy bis bi sëriñ Touba wàcceeb liggéey ba ñibbi si Touba. muy bis bi sëriñ Touba wàcceeb liggéey ba ñibbi si Touba. wax nga ne sëriñ Modou wax ko it ni ko. na nga bind loo xam ne. màggal màggal gee koy tax a jóg. na bind loo xam ne it màggal gee koy tax a jóg. loola it defoon naa ko. loola it defoon na ko. xëy na du ñàkk ku am ab dayam ci nit ñi. xëy na du ñàkk ku ca am benn dég-dég ci nit ñi. ab day ab day. waaw la ma bindoon. la mu bindoon. Hmm. du ñàkk kenn ku ci am dara ci nit ñi. ba loola amee. ni ba loola amee. xëy na du maye ci ndigal. sëriñ du Moustapha joxe ca ndigal. ñu tàmbali ko. ñu tàmbali ko. di ko def ci bis bi fi borom daaru jógee. di ko def ci bis bi fi borom daaru jógee. mu di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru baraxlu wii. muy ñaar fukki fan ak ci weeru baraxlu wii. muy wéy ca noona. muy wéy ca noona. ba fi nekkee. ba jamono yi fi Cheikh Mouhamadou Fallilou Mbacke nekkee. ñu def ko fi ay yoon. ñu def ko fi ay yoon. ci bis boobu ci bis boobu. moom nag moo ko soppi indi ko ci bis bi mu nekk tey. Serigne Fallou moomi moo ko soppi te bis ba mu nekkoon andi ko ci bis bii tey. moom da koo teg ci fu wér. moom it la tax mu def ko da koo teg ci fu wér. dafa wax ni. Serigne Fallou dafa wax ni. ba Serigne Touba jógee ci géej gi. ba sëriñ Touba jógee ci géej gi. ba dikk ndar. ba dikk ndar. dafa yónnee woolu Cheikh Ibra Faty. dafa yónnee woolu Cheikh Ibra Faty mi maam Thierno mi. booba mu nga ca Daaru Marnaan gee ca Touba. booba Serigne mu fekki ko Ndar. Serigne bi dem fekki ko Ndar. booba yëgseegul ci biir réew. booba Serigne Touba yëgseegul ci biir réew. dafa ñibbisi ba dikk Ndar rek. dafa ñibbisi ba dikk Ndar rek. waaw. Serigne Fallou nag. Serigne Fallou nag. wax ni bis boobee ñu dajee fa ak Serigne Touba dajee fa Ndar. bisub Saabaan la dajeel. bisub fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu la dajeel. ñu ne kon nag na ngeen ko def ci boobu. ni kon ndigal la ngoog dee leen ko màggal ci boobu. lii li nga xam ne nag. ni lii nga xam ni nag. Hmm, dana ko ci yokk ci googu wet. dana ko ci dolli ci googu wet. moo di. moo di. dëkk bi. dëkk bi. day dëkk boo xam ni. dafay dëkk boo xam ni. Sëñ Tuubaa nekkee Jolof. ba maam sëriñ Touba nekkee Jolof. moo digal borom dëkk bi. moo digaloon maam Thierno. borom dëkk bi boroom dëkk bi. fekk booba ma nga Mbàkke Kajoor. fekk booba Serigne baa nga Mbàkke Kajoor. mu bind ci loxoom. mu bind maam borom Touba bind ci loxoom. wax ko ni ko. wax maam na ni ko. na nga sanc dëkk ba. na nga sanc dëkk ba. ca Gasteen ba. ca Gasteen ba. te tudde ko daarul muxti te tudde ko daarul muxti loolee ni loolee ba mu ko ba mu ko waxee ba mu ko waxee da leen wax wax turu dëkk bi da leen a wax turu dëkk bi ña toog fa moom ña fa moom mu ni leen mu ni leen ndax mas ngeen a dégg benn dëkk bu tudd noonu ndax mas ngeen a dégg benn dëkk bu tuddagoon noonu ñu fa nekk ñu ko mosuñu koo dégg mbooloo ma fa nokkan lépp ni ko mosunoo dégg wowutur mu ni leen tur woowu fortuwuma ko mu ni leen turo woowu ma joxe fortuwuma ko loolu nag moo tax ma ne sëriñ Abdou Lahad loolu moo tax sëriñ Abdou Khoudous nii ni sëriñ Abdou Lahad dénk naa la dëkk bi dénk naa la dëkk bi ndax bataaxal boobee ndax lettre boobee nijaayam sëriñ Abdou Lahad ndijaayi sëriñ Abdou Lahad ndijaayi sëriñ Abdou Lahad ñu di ko wax sëriñ Amsatu Jaxate ñu di ko wax sëriñ Amsatu Jaxate moom la sëriñ Touba jox bataaxal ba fa Jolof moom la sëriñ Touba joxoon lettre ba fa Jolof mu yët ko mu yët ko maam Thierno xam ne kon nag ne sëñ bi nee na mu xam ne kon nag. dëkk boo xam ni bàyyi ma ko sanc lu. dëkk boo xam ni bàyyi ma ko sanc lu. sàkk tur wa. sàkk tur wa. jox ko nijaay yi lengeem. jox ko nijaay yi lengeem. mu yët ko ko. mu yët ko ko. ab dëkkam. ab dëkkam. ba moo tax nee naa ko. ba moo tax sëriñ bi nee na ko. li ñuy wax naan Touba Darou Khoudoss. li ñuy wax naan Touba Darou Khoudoss. di wax Touba Darul Minam. di wax Touba Darul Minam. di wax Touba guy mbind. di wax Touba guy mbind. na nga jàppe dëkk bi it na nga jàppe dëkk bi noonu ni Touba Darou Mouhty. loo fay wax ak loo fay def. lépp loo fi wax ak loo fi def. dee ko fi def dee ko fi wax. dee ko fi ko fi wax. dénk naa la ko dénk naa la ko mi ngi ci yow. waaw li ci des nag. sëriñ bi ne li ci des nag. loolee nga xam ni moom la sëñ Daaw Balla ñaanoon sëñ Modou Moustapha. loolee nga xam ni moom la magam ju baax ja sëriñ Mouhamadou Balla ñaanoon sëñ Mouhamadou Moustapha. muy màggal bis bi. muy màggal bis bi. dafa am loo xam ni. dafa am loo xam ni. damaa mës dégg ku ci wax sax dara. moom sëriñ bi dafa mës dégg sax ku ciy wax dara. defe ni bis boo xam ne nit dafaa jóge. defe ni bis boo xam ne nit dafaa jóge. jarul di def yenn yi. jarul sax di def yenn yi. moo xam ne nag. sëriñ bi ni mu xam ne nag. sëriñ Mouhamadou Moustapha. sëriñ Mouhamadou Moustapha. bu matul woon la mu doon. bu matul woon la mu doon. sëriñ Touba du ko taawloo. sëriñ Touba du ko taawloo. du jëkk a doon ab xalifaam. du jëkk a doon it ab xalifaam. te it. te jox na ko ci xam-xam. yàlla jox na ko ci xam-xam. loo xam ne. loo xam ne. bu du woon sëriñ Touba it. bu du woon sëriñ Touba it. la mu am ci xam-xam la mu am ci xam-xam lu muy tàmbali lépp lu muy tàmbali wéer na ko ci barab wéer na ko ci barab bu wér bu wér loolu moo tax nu it nu nekk ci ni loolu moo taxit nu it nu nekk ci te loolu te loolu sax ndax ñu bari ñu ko ci roy ñu bari ñu ngi koy roy ginnaaw sëriñ mu daaw bàll mi ginnaaw sëriñ mu daw bàll mi ñu bari ñu ko ciy roy ñu bari ñu ko ci roy mm. te xadiis yonent bi day wax ni te xadiisu yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyama wa man sanna sunnatan sayiatan fa alayhi wisruha wa wisru man amila biha ila yawm alqiyama mu wax ni mu wax ni ku tàmbali loo xam ne ku tàmbali loo xam ne yaa ko jëkk a def yaa ko jëkk a def ci lu baax ci lu baax da nga am yool ba da nga am yool ba am yoolu képp ku ko jëf am yoolu képpit ku ko jëf ba yawm alqiyama ba keroog saa di taxaw koo xam ne da nga def loo xam ne itam di koo xam ni dangaa def loo xam ne itam yaa ko yoonal yaa ko yoonal te muy lu baaxul te muy lu baaxul ba da nga da nga fab bàkkaar ba da fab bàkkaar ba danga la war dana la war dana war képp ku jëfe loolee ba yamal xiyam dana warit képp ku jëfe loolee ba yamal xiyam kon loolu doy naa tegtale ci sëñ Moodu sëriñ bi nee na kon loolu doy naa teg tele ci sëriñ Moodu ak sëriñ Moodu mii ko roy ci moom ak sëriñ Moodu mii ko roy ci moom ginnaaw loolu itam. ni ginnaaw loolu itam. bu nu ko seetee. bu nu ko seetee. te xam ni daje bi. te xam ni daje bi. dara waralu ko. dara waralu ko. lu muy daje jàng alxuraan. lu muy daje jàng alxuraan. tagg yonant bi. tagg yonant bi. wut ay ñam jox jullit yi. wut ay ñam leer jullit yi. ñu defal ko ki nga xam ne moo tax moo moom bis ba. ñu defal ko ki nga xam ne moo moom bis bi. dana dal di dëppoo ak ak ak sunna. dana daal di dëppoo ak sunna. ndax bépp jataay. ndax dëpp jataay. ak mbooloo mu toog. ak bépp mbooloo mu fa toog. di tudd yàlla. di tudd yàlla. di sikkar. di sikkar. di jàng alquran. di jàng alquran. moom la yonent bi ni mooy riyaadul janna. moom la yonent bi wax ni mooy riyaadul janna. riyaadul janna. riyaadul janna. daa wax ni idaa marartum bi riyaadil jannati fartau qaalu وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلاق الذكر dafa wax ni nit dafa wax ni wax ni nit dafa wax ni bu ngeen rombee dëri dëri àjjana bu ngeen rombee dëri àjjana na ngeen ca for na ngeen ca for ñu ne ko lu luy dëri àjjana ñu ni ko lan mooy dëri àjjana ñu ne ko mu ne mooy géew yi ñuy tudde yàlla mu ni leen mooy géew yi ñuy tudde yàlla te tudd yàlla te tudd yàlla alquran moo ca jiitu. alquran la ca jiitu. alquran ci boppam daañu ko tuddee zikar. alquran ci boppam it daañu ko tuddee zikar. innaa nahnu nazzalnaa zikra wa innaa lahu lahaafizuun. mu wax it mu dellu waxaat ni. wa innahu la zikrun laka wa li qawmik. wa innahu la zikrun laka wa li qawmik. moom alquran kon loolu doy naa xamee ni foo xam ne loolu rek lañ fay def. sëriñ bi nee na kon loolu bay naa xamee ni foo xam ne loolu rek lañ fay def. dëppoo na ak yoon. dëppoo na ak yoon. dëppoo ak sunna. dëppoo it ak sunna. waaw. ah gannaaw loolu it. ñu gannaaw loolu it. liggéeyal sa waajur. liggéeyal say waajur. li jiitu sax moo di yonent bi. li sax loolu lépp moo di yonent bi. ndax ñaanal ko. ndax ñaanal ko. moo di salaatu ala bi moo di salaatu ala nabi. te sunu borom daa wax ni. te yàlla suñu borom dafa wax ni. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما dafa wax ni lii dafa wax ni yàlla ci boppam yàlla ci boppam ak malaakaam yi ak malaakaam yi dañuy julli ci yonante bi dañuy sàbbaat di julli ci yonante bi ñu ne kon nag mu ni kon nag yéen ñi gëm yéen ñi gëm dee leen julli ci yonent bi. dee leen julli ci yonent bi. waaw te julli ci yonent bi. te it julli ci yonent bi. ñaanal ko rek la. ñaanal ko rek la. sallallahu alayhi wa sallam dañ koy firee yàlla na ko yàlla dolli xéewal. sallallahu alayhi wa sallam dañu koy firee yàlla na ko yàlla dolli xéewal ak mucc. loolu rek lay firi. ni loolu rek lay firi. ah ñu gis it. nee na ñu gis it. Omar ibnul Xataab. Omar Abdul Xataab. ibnul Xataab ibnul Xataab. radiyallahu anhu dafa doon tàggu yonent bi. ni daf doon tàggu yonent bi. di dem umra ji. di dem umra ji. yonent bi yonent bi ni ko. yonent bi ni ko. ashrik naa fi du'aa'ika yaa Umar yow Umar. yow Umar. na nga nu boole ci say ñaan. na nga nu boole ci say ñaan. jëm yonent bi moo soxla ñu di ko ñaanal. njeeg yonent bi moom ci boppam moo soxla ñu di ko ñaanal. ba ko ba di ko dénk Umar. ba di ko dénk Umar. Ah, boobee ba fi nekk ñu julli ci moom di ko ñaanal. boobee ba léegi ñuy julli ci moom di ko ñaanal. kon keneen kon keneen ku mën di doon it. ñu war koy ñaanal ñu war koy ñaanal. ah. beneen hadis dikk. dafa am lu alquran wax. ni dafa am lu alquran wax. yoo wax ne wa an laysa lil insani illa ma saa dafa wax ci alquran ni. ni dafa wax ci alquran nit amul lu may la jëf. nit ku mu mën di doon amuloo dara lu la nga jëf. ba am sax ñu wax ni kon ba am sax ñu wax ñu wax ni kon ku dee nga di ko saraxal wala nga di ko ñaanal du jariñ dara ku dee ba noppi nga di ko saraxal ak di ko ñaanal dootu ko jariñ dara waaye xadis yonent bi dikk leeral ko wante yo xadisu yonent bi dikk leeral ko wax ni wax ni isa maata bnu aadama inqataa amaluhu illa min salaasin sadaqatin jaariyatin aw ilmin yuntafau bihi aw waladin saalihin yad'u lahu mu wax ni xadis bi wax ni. doomu aadama. doomu aadama. bu dee. bu dee. jëfam jëpp dog na. jëfam jëpp dog na. ndare yett. ginnaaw ñett. sarax soo fa bàyyi muy dox. sarax soo fa bàyyi muy dox. mooy lu mel ni nga gasu teen. mooy lu mel ni nga gasu teen. wala naanu. wala naanu bu mu mën a doon. nga tabax jàkk. wala nga tabax jàkk. wala juma. wala juma. nga wut ay tool meññet na di dem ci jullit na di dem ci jullit yi wala nga tabax kër wala nga tabax kër xamusle ko jullit yi di ca dëkk jullit yi di ca dëkk wala nga ne liyaas bu ci jógee nañ ma ko joxal ay fuqaraawu nangam wala nga ni liyaas bu ci jógee nañ ko jox ay fuqaraawu nangam waaw loolu mooy sadaqatul jaariyatu sadaqa soo xam ne mi ngi dox sa ginnaaw loolu jëf la joo xam ne mu ngi dox sa ginnaaw kooku mooy benn bi nii kooku mooy benn bi ci des beneen bi ci des. moo di aw ilmin yuntafa'u bihi moo di xam-xam boo xam ne des koy jëriñoo sa ginnaaw. mooy xam-xam boo boo xam ne des koy jëriñoo sa ginnaaw. loolu moo di mel ni taalif ay téere. loolu mu ngi mel ni taalif ay téere. wala wala nga bind alxuraan ñu di ko jàng. baa nga bind alxuraan ba fi ñu di ko jàng. wala nga jënd ay téere. yooyu alxuraan ak yooyu xam-xam nit ñi di koy jëriñoo. baa nga jënd téerey alxuraan wala yu xam-xam joxe nit ñi ñu koy jariñoo wala nga xamal aw nit ñooñu di ko xamle. baa nga xamal aw nit ñooñu wëlbatiku di xamle. kooku mooy ñaareel bi. boobu mooy ñaareel bi. di ko ñetteel. ni di ko ñetteel. mooy nga bàyyi doom. mooy nga bàyyi doom. ju baax ju baax. mu di la ñaanal mu di la ñaanal. loolu nag kon. ni loolu nag kon. manees na cee déggee. manees na cee déggee. Mm, màggal yi ñuy def. ni màggal yu ñuy def. ci bis boo xam ne kooka dafaa jóge. ci bis boo xam ne kooka dafaa jóge. Ah, doomam di ko ko defal. doomam wëlbatiku di ko ko defal. Ah, ñu ngi def la ñu santaane. ñu ngi def li ñu santaane. waaw. Ah. loolu rek moom mooy bis bi. sëriñ bi nee na loolu rek nag mooy bis bi. ndax boo wootee war ngaa xam li li ngay woote. ndax boo wootee ba ñu wuy si la war ngaa xam le li nga wooteeg ñi la wuy si du ñu wuy si. loolu mooy bis bi. nii loolu mooy bis bi. nii la amee nii la amee. nii la amee. nii la amee. li ci des nii li ci des nag. Hmm. xam ne war naa leen a jox ndigal. ñi nga xam ni moom war na leen a jox ndigal. wala moo war leen a dénk. baa mu war leen a dénk. jiital ci sama bopp. jiital ndénkaane yooyu ak ndigal yi mu jiital ci boppam. moo di. moo di. ñi nga xam ni doomi Cheikh Ibra Faati lañu. mooy ñi nga xam ni doomi Cheikh Ibra Faati lañu. ak ñi nga xam ni. ak ñi nga xam ni. ay sëtam lañu. ay sëtam lañu. ak ñi nga xam ni. ak ñi nga xam ni. ay taalibe yu aju ci moom lañu. ay taalibe yu jokk ci moom lañu. ñooñu sañ naa leen a wax. ñoom. de moom sañ na leen a wax. ndax dañoo wax ne min xusni islaami mari tarkuhu ma laa yaani kay ñii moom war naa leen a wax. ah ñii nekk na ci rafetu jëf yi waay mu bañ a dugg ci lu yoonam nekkut. ñii ñii nag sama yoonam ngi ci ñoom. ñii yoonam ma nga ci ñoom sañ na leen a jox ndigal sañ na leen a tere ñu baax. li ma leen di digal. ni li mu leen di digal. nu farlu ci topp yàlla. mooy nu farlu ci topp yàlla. ak liggéey. ak liggéey. ak farlu ci fonk ak taalibe ak farlu bu baax ci fonk taalibe ndax yooyu rek ni ndax ñett yooyu rek ci la borom daaru nekkoon ci la borom daaru nekkoon ba jóge fi ba jóge fi mu nit sëñ Moodu mi fi nekkoon euh, ñu nit sëriñ Moodu mi fi ak i rakkam yi dem ak i rakkam yi dem ak ñun ñi fi des ak ñun ñi fi yàlla baawandi nan jéem a ne ci loolu nan jéem a ne ci loolu buñ ne wax buñ ne jamono ji daa soppiku buñ wax mukk ni jamono ji daa soppiku wala mel ni la baaxoon daa baaxut wala la leneen daa dikk lu ba mel ni la baaxoon daa baaxatul baa leneen daa dikk loo xam ne moo gën loola loo xam ne moo gën loola bu ñu waxit ni ni bu ñu waxit mukk ni mënunoo aw fa mu awoon mënunoo aw fa mu aw fa mu awoon wa in lam yudrik waalihu sha'wa daliya koo xam ne dafa dafa dafa dafa mënta dox mu ni koo xam ne dafa mënta dox ab gàtt ab gàtt. wala leneen. wala leneen. bu mu ne rek lafañ naa na topp ci mboorum ñamu àndal rek. bu mu ni rek lafañ naa damay toog na góorgóorlu rek topp ca ñamu àndal. waaw wax loolu. ni bu nu wax loolu. waaw. lii rek Cheikh la la a nag la mu doon def ak yooyu mënuñu ko. waaye nañ ci jéem dem ci man ni kii nga xam ne moom la ñuy roy muy suñu royukaay di Cheikh Ibra la mu daan def loolu mooy discours bi nga xamante ni Serigne Abdou Khoudoss def na ko ci màggalu Daaru Muxti ci weeru mai ci 1984 kon dañuy dellu si rek digteel leen beneen waxtaan wi nga xamante ni def na ko ci màggal ga ci topp moom ba tey ci weeru mai ci 1985 te Cheikh Awa Balla Gueye di ko jottale loolu nga wax nag ci ñaan gi danaa ko ñaan. danaa ko ñaan. ngir yàlla. ngir yàlla. ci ki nga xam ne. ci ki nga xam ne. lottul ci dara. lottul ci dara. te lu am mooma. te lu am mooma. ñu ngi koy ñaan moom suñu borom. ñoo ngi koy ñaan moom suñu borom. bi fadlihi wa karamihi. ak tedd nga am. mu indi xéewal ci réew mi. mu indi xéewal ci réew mi. indi fi naataange. indi fi naataange. dàq bekkoor bi. te dàq bekkoor bi. te indi fi nawet bu barkeel. te indi fi nawet bu barkeel. bu ànd ak jàmm. bu ànd ak jàmm. leneen lu waay di liggéey it. leneen lu waay di liggéey it. ci réew mi ci réew yàlla barkeel liggéey. yàlla barkeel liggéey ba. ak fu mu koy liggéey. ak fu mu koy liggéey. ak lu muy liggéey. ak lu muy liggéey. ñu wëlbati nag. ñu wëlbatiku nag. jëm ci ñii nga xam ne. jëm ci ñii nga xam ne. lépp loo xam ne. lislaam daf koo digle. lislaam daf koo digle. nañ ko def lanu mën. nañ ca def lanu man lépp loo xam ne daf koo tere. lépp loo xam ne daf koo tere. bu nu fa xand mukk. bu nu fa xand mukk. te farlu it ci taalibe gi. te farlu it ci taalibe gi. ndax amuñu lu dul moom. amuñu lu dul moom. la nga xam ne amuloo lu dul moom. te sàggan ci la nga xam ne amuloo lu dul moom. ba loolu rëcc la. ba loolu rëcc la. ëpp naa def. ëpp naa def. da nga rëccu ndax da nga rëccu ci wala saxaata lañ dem ca bis boo xam ne nii rëccu du fa am njëriñ liggéeyu liggéeyu tool yi it liggéeyu tool yi it mën na ko fonk mën na ko fonk ndax ndax borom daaru borom daaru dafa wax ni dafa wax ni di sëñ Tuubaa di dem ci géej gi di sëñ Tuubaa di dem ci géej gi li tax mu fonk mbay li tax mu fonk mbay da koo boole woon ci yam ko dénk. daf koo boole woon ci yam ko dénkoon. ak yam ko batale. ak yam ko batale woon. aw bayit la ko wax. aw bayit la ko wax. da ko ne wa fi zar'an. da ko ne bu ci mbay ne. wa fi zar'an ruuxul xalq. Mhm. in kunta aaqila. Mhm. wa fiihi wa fiihi imaadu diini li xurri wal abdi. daf ko ne woon ci mbay mii ñu nekk ci la ruub mbir mbindeef yi nekk. Mhm. ci biir mbay mi itam ci la dë dëgërub diine nekk. lil xurri wal abdi. ci moo xam gor la moo xam jaam la. nee loolu moo waral. nee na loolu moo waral. bayit woowu mu ko wax. bayit woowu mu ko wax. moo tax mu fonk mbay. moo tax mu fonk mbay. te yaakaar naa ni. te yaakaar naa ni. ginnaaw booba day dem. ginnaaw booba day dem. bàttale ko ginnaawam. bàttale ko ginnaawam. njaboot bi. njaboot bi. ak taalibe yi. ak taalibe yi. ak yoon wi. ak yoon wi. kon lu mu digle woon boobee. kon lu mu digle woon boobee. mën naa dem ci biir ñëpp. mën naa dem ci biir ñëpp. moo yor yoon wi. ndax booba moo yor yoon wi. kon loola du fi jóg. kon nag loola du fi jóg. mbay moomee mu def. mbay moomee mu def. am na ca loo xam ne. am na ca loo xam ne. yaakaar naa ne ndigal loolee ko ko may. yaakaar naa ne ndigal ko ndax dafa daan def loo xam ne donga yi nekk ci tool yi tarbiya yi dafa daan def loo xam ne donga yi nekk ci tool yi di ay tarbiya lu ñuy lépp lu ñu liggéey da koy jox sëriñ Touba da koy jox sëriñ Touba leneen lu ko dikkal leneen lu ko dikkal nag soo ko jëmee ci ay yitteem mu soo koo jëmee ci ay yitteem ak yittey bindeef ak yittey bindeef yi ci def am na benn waxtaan am na benn waxtaan kat ku ñuy wax Balla Touré na ko wax ni ko mas na ko wax ni ko ñaari bataaxel. ñaari bataaxel. ci yow la mas a daje. ci yow la mas a daje. bataaxelu sëñ Touba. bataaxelu sëñ Touba. dikk ñi la dugub nekkul ci kër gi. dikk ñi la dugub nekkul ci kër gi. na nga wut dugub indi ci kër gi. na nga wut dugub indi ci kër gi. ak bataaxel bu jógee ci borom ndar. ak bataaxel bu jógee ci borom ndar. ñu ne la wutal ma dugub ma jox ko réew mi ñu dundee ko. ñu ne wutal ma dugub ma jox ko réew mi ñu dundee ko. ñu ne ko ñaari bataaxel yaa ko mas a kon ñaari bataaxel yooyu yaa ko mas a am yow Thierno. dugub dugub de nekk na fi. ñu ngi fi jógee. sëriñ Modou mu sëriñ Modou ñi ko wuutu. ñi ko wuutu woon. di ko jël si. di yeble si di ko jël si. ñu di ko jox njaboot. ñu di ko jox njaboot ga. ba loolee def na ay at. ba loolee def na ay at. wala lañ xam ne nekkee ba koy laaj loolee ab booba la ñu xam ne nekkee ba muy laaj loola ab tàggoo la woon. loolu mu wax ci borom ndari. loolu mu wax ci borom ndari. moom it noonu la amee. moom it noonu la amee. ndax euh, mooma at. ndax mooma at. dafa yebal chef de canton yi. dafa yebal chef de canton yi. ñu dikk fii mu di leen jox dugub. mu di leen jox dugub. ñu di ko yóbbu ci seen i canton di ko jox nit ñi. ñu di ko yóbbu ci seen i di ko séddale nit ñi. ñu ngi fàttaliku. ñoo ngi fàttaliku. benn chef de canton bu ñuy wax yet naa yoro. benn tant benn chef de canton bu ñuy wax yet naa yoro. nee ñu dafa bi mu dikkee fii. nee ñu bi mu dikkee fii. dafa wax ni. dafa wax ni. dugub bi mu ngi mel ni suuf si. dugub bi mu ngi mel ni suuf si. dafa déggul wolof lool. ndax wolof yi dafa seetul. dugub bi bari na lool mi ngi mel ni mu bari na lool ngi mel ni suuf si. kon léegi mën ngeen a defal dërëm ñaari faxa. kon nag mën ngeen noo defal dërëm ñaari faxa. nga loolu bariwul ku ko mas a am. loolu de bariwul ku ko mas a am. ci mujj xeex bi. ci mujj xeex bi. commandant Louga. commandant Louga. yónnee si na fii ndaw. yónnee si na fii ndaw. wax ko ni ko. wax ko ni ko. ñi nga xam ne dañ leen téye fii ci kaso bi ñi nga xam ne dañ leen a téye fii ci kaso bi dañoo amatul ceeb bu ñu leen dundale dañoo amatul ceeb bu ñu leen dundale mu bëgg nga jox nu dugub mu bëgg nga jox nu dugub ñu dundale leen ko ñu dundale leen ko am na kuñ daan wax jaabi am na kuñ daan wax jaabi ñu dëkk Louga ñu ci bari xam nañ ko ñu dëkk Louga ñu ci bari xam nañ ko kooku la yebal kooku la yebal ba mu dikkee ba mu dikkee sëriñ bi ne ko dugub ji dañ koo bojjagul sëriñ bi ne ko dugub ji dañ koo bojjagul waaye des na leen bojjal waaye des na leen bojjal mu ne ko nag mënumaa ñàkk lu ma yóbbu moom mu ne ko nag mënu laa mënumaa ñàkk lu ma yóbbu man ndax ña fa ne dara luñ leen jox nekku ndax ña fa nekk dara luñ leen jox néewu fa moom moo yor kaso ba te booba moom moo yor kaso ba ba sëñ bi dafa foofu ay saaku ci biir kër gi ba sëñ bi dafa foofu ay saaku ci biir kër gi jox ko mu yóbbu jox ko mu yóbbu ñu soog a nekk ci wàccaayu bojjal leen ñu soog a nekk ci wàccaayu bojjal leen kon nag ñun war a a yokkat ñun ñi nga xam nga xam ne nag ñooy waa kër borom daaru ñooy waa kër borom daaru nanu góorgóorlu. nanu góorgóorlu. xam nañ ne sax. xam nañ ne sax. laa yudrikuhu l-ghaalibu sa'yu d-daalin. na kenn kuy soox du mën a dab mukk lefum ka nga xam ne nii day waaxoo tànkam ne njaraat. xam nañu ni. xam nañu ni. ba nu juddoo. ba nu juddoo. lanu yaafus. lanu yaafusoon. ñooñee ñoo doon ay ñoo ñee ñoo doon góor ya dëgg. kon mënuñoo fexe ba jot. kon mënuñoo fexe ba jot leen. ba ba seen ila tax mbay. nee na mënuñoo fexe ba jot leen. lu rek dañuy lotaar rek. mu mu mënuñoo yegg ci seen ñaari tax. mënuñoo àgg ci seen ñaari bëjur yi. Hmm. waaye nag. waaye nag. du tee nan leen bëgg. du tee nag nan leen bëgg. te roy leen. te roy leen. ndax xam nga imaamu Shaafi'i. ndax imaamu Shaafi'i. dafa wax ni. dafa wax ni. uhibbu saalihiin bëgg ñu ñu baax ñi. wa lastu minhum. te nag bokkuma ci ñoom bëgg naa leen waaye bokkuma ci ñoom. wa arju an anaala bihim shafaa. waaye yaakaar naa mbëggeel gii ëllëg ma am ci ak ràmm ci yàlla. wa akrahu man. waaye bañ naa képp koo xam ni. tijaaratuhu al-maasi. la muy dunde la muy commercer mooy dund rek. wa in kunna sawaan fil bidaa. donte lee noo bokk marchandise taxul ma bëgg leen. kon nag ñun foofu nañ fa ne rek. kon nag ñun nanu nekk foofa rek. bëgg Sëriñ Touba. nanu bëgg Sëriñ Touba. bëgg Thierno. bëgg Thierno. bëgg képp ku baax. bëgg képp ku baax. te roy ci ñoom. te roy ci ñoom. te bu nu ne rek jamono daa soppeeku. te bu nu rek jamono daa soppeeku. dañuy wax naan jamono bi moo soppeeku. dañuy wax naan jamono bi moo soppeeku. sëñ Touba nee waaye sëñ Touba nee na. waa jamono ñooy soppeeku. waa jamono ñooy soppeeku. jamono du soppeeku. waaye jamono na melaan rek la mel. nga xam ne jant baa ngi fenk. ñu xam ne jant baa ngi fenk. weer wi ko alfasolu arbaa ñu ngi dikk. nee na faslu ñeenti faslu yi ñu ngi dikk nañ daan dikkee. waaw lu ci nam waaye nit ñi ñoo soppeeku. lu ci nekk na mu meloon la mel waaye nit ñi ñooy soppeeku. ñoo soppeeku nun nag ñoo soppeeku. kon nag. kon nag. nan delluwaat ci loolee. nan delluwaat ci loolee. inna allaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa bi anfusihim. mu yàlla nee na ma soppi mukk li nekk ci nit ñi lu nit ñi ñoom ñooy la ñu nekkoon démb. zalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta loolu la ko waral mooy yàlla nee ne yéenewumaa soppi xiiwal gi ma def ci jaam yi benn jamono. bu ne rek jamono ji bu nu wax ni rek jamono ji soppeeku na. daal toog. daal di toog. daal di bañatee sàkku. daal di bañatee sàkku. bañatee bëgg lañ lañ daan bëgg. bañatee bëgg lañ daan bëgg. bañatee wut lañ daan wut. lañ daan wut. ku ko bëgg. ndax ku ko bëgg. te wute ko nañu ko doon wute. te wute ko nañu ko daan wute. ba tey da ko mën a am. ba tey da ko am nañu ko daan amee. ndax li sëñ Touba indi woon. ndax li sëñ Touba indi woon. Mm, ci ak nekkam rek. yemul ci ak nekkam rek. dafay nekk ba faaw. nekk ba faaw. dafa mel ni sax. dafa mel ni sax. dafa mel ni sax ginnaawam la gën a yokku. dafa mel ni bu ñu koy seetlu ginnaawam la gën a yokku. kon loolu day naa rafet a njort. kon loolu day naa rafet a njort. ñu jàpp ci moom bu baax. mu jàpp ci moom bu baax. te mooy ci moom bu baax. te mooy ci moom bu baax. te xam ne it. te xam ne it. Hmm. li saa borom digle woon. li saa digle woon. li mu tere woon. ak li mu tere woon. du fi jóg mukk. du fi jóg mukk. kenn mënu koo sotti. kenn mënu koo sotti. Hmm. li yonent ba waxoon it. la yonent ba waxoon it. moom sunna mu ngi fi. moom it sunna mu ngi fi. mu ngi bàyyi naa ci yéen. wa in tamassaktum bihi loo xam ne bu ngeen te jàppee lan ba ba'di abada du ngeen réer sama ginnaaw mukk kitaaballahi wa sunnati te loola mooy sama sunnati ak téeréb yàlla bi kon nag kon nag ku sàggan yaa sàggan ku sàggan yaa sàggan waaye la yàlla digle woon mi ngi fi waaye la yàlla digle woon mi ngi fi sunna tarbiya wi mi ngi fi yoonu si sëñ Tuubaa indi woon mi ngi fi ku yokkat yaa yokkat ku dellu ginnaaw yaa dellu ginnaaw. ku dellu ginnaaw yaa dellu ginnaaw. ku sàggan ba bañ koo am yaa ko def. ku sàggan ba bañ koo am yaa ko def. ngir yaa ko wuti. ngir yaa ko wuti. wala nga def yaa ko wutut. ngir yaa ko wutut. mel ni loola dafa soppi leneen a def leneen moo xew léegi. mel ni loola dafa xaw a soppi leneen a xew léegi. te loolu yëpp amu ci. te yëpp amu ci. loola mi ngi fi ba faaw. loola mi ngi fi ba faaw. ndax moom it. loolu xadis yonent bi wax. loolu xadis yonent bi wax. jiin wax léegi. jiin wax léegi. wax na lu ko niir. wax na lu ko niir moom sëñ Touba. fa Touba. nee na Touba texe. fa Touba li abdin. nee na Touba texe daal ñenn ab murit ab jaam. yaabudullaha rabbahu. bépp buy jaamu boromam. bi tartiili quraanin di ko jaamoo ci ja ci jàng alquran bi màgg ji. tartiili quraanin azimin yaqi karba. mii nga xam ne moo nuy fegal tey ay njàqare. loolu dëppoo nag. hadis. loolu nag dëppoo naag hadis boobu. téereem bi ak sunaam. téereem bi ak sunaam. kon moom it loolu la digle. kon moom itam loolu la digle. te te layoon ak nun. te nag layoon nun. ba tàggoog nun. ndax nee na. ndax nee na. taalibe. taalibe. ak sëriñ ba. ak sëriñ ba. ñoo bokk lu ñu leen digal. ñoo bokk lu ñu leen digal. bokk lu ñu leen tere. bokk lu ñu leen tere. waaye di wax rek sëriñ bi nangam. waaye di wax rek sëriñ bi nangam. mi ngi def nangam du def nangam. mi ngi def nangam du ma def nangam. te loolu bi dafa layoo ñun ci loolu ba noppi. dafa woote ci jolof. dafa woote ci jolof. jaamu leen yàlla. ni jaamu leen yàlla. man kat jaamu lu ma leen. man kat jaamu lu leen. sama bopp laay jaamul yàlla. sama bopp rek laay jaamul yàlla. kon nag layoo na ak ñun. kon nag layoo ak ñun. kon nanu góorgóorlu bu baax. kon nanu góorgóorlu bu baax. ci topp yàlla. yàlla. bëgg sëriñ bi. ak bëgg sëriñ bi. ak gëm ko. ak gëm ko. te mooy ci moom. te mooy ci moom. te xam ne ña ko jëkkoon sax. te xam ne ña ko jëkkoon sax. Euh, ba nga xam ne nii ak soofi yi day soog a sosu. nga xam ne booba ak sofiyanke day soog a sosu. ci jamono yi ak dina it. ci jamono yi. abul qasim dina it. abul qasim. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يعني بعد كتاب بقي كتاب ñu fàttali suñu bopp ñu leen fàttali dégg ngeen saa yi ñu jàngaleel ci julli bi mu wax ni ñu zakkir in nafaati zikra sayazakkaru man yaxsha saa yoo ca sos ñu wax ni فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر وحنون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأن إن في ذلك لذكرى لمن كان له خلق أو القصة وهو شهيد fàttali boo ko déggee lu ñu waxal la ndax daanaka wax loo xam ne kenn mësu ko wax wala déggee su ko daanaka amut waaye nag mm, tur bi rek mm, jiital kii suñu bopp ci ndigle bi ak tere ndax bés bi moom lañu war a jëkk li ci aju loola moo di ñëwri koor yi ndax dafa di loo xam ne fekkee dangaa woor ba yeggal dañ koy yëkkati aj ko suñu diggante asamaan lu soog joxe ko nañ ko laaj foofu du yegg fañ la koy dencal